neuf euh, ñu ñu modifier l'article L cinquante sept éliminer Karim Wade éliminer Khalifa Sall ñu ñëw euh, deux mille euh, ñu nar a dem deux mille vingt quatre mu am des candidats de potentiels candidats à l'élection présidentielle ñu intenter des retours di poser waat la question de la bi binationalité. parce que non yaa ngi jaxase. lan laa jaxase. lañ defoon article yooyu changé woon. di pas changer benn article. pour que waxuma loolu non 2024 laa wax. 2024 mu am ñu jàll. li comparaison n'est pas raison sa euh, comparaison am ñu jàll parrainage ñu newaat di. Euh, sa comparaison baaxul benn bokk yaakaar di intenté ay. la comparaison est non je ne compare pas. je je je de une succession de faits. waaw 2024 mu am ñu jàll. nga xam ne peut-être que euh, jàpp am nañ njort ne mën nañu valider seen candidature euh, benn Bokk Yaakaar di intenter des recours contre des contre contre certains candidats et puis ñu teg euh, au centre la question de la de la binationalité. man do man débat yooyu du ci dugg. lu sax xanaa doo avocat. du fii doo juriste du ma consultant fii ci ci sa télé bi. waaw mais damay damay sàkku sa xam-xam. non du ci wax. nañ bàyyi conseil constitutionnel ndeyam bi léegi kii tranché xam lu wax kenn mënu ci dara mu tranché waane weesuwul waane ak sob dugg ci débat boo xam ne am na koo xam ne moom lañ fay ay millions ay salaire conseil constitutionnel ay jumtukaay pour ñu tranché seen liggéey mooy loolu le contentieux électoral. ak Aly Ngouille Ndiaye fàtte naa boole nañ ci Aly Ngouille Ndiaye Boun Abdallah Mohamed Boun Abdallah Dionne euh, ñu ne. Eh, dañoo war a toog au minimum six mois balaa ñuy mën a présenté wu. xam nga yow duma ci wax. am naa hmm. xam naa ci lu bëri nag. mais ak ma cee mën a wax. pourtant nag bi ma annoncé. ak ma cee mën a wax pourtant pourtant gars yi yaakaar boobu lañ am mais yaakaar boobu lañ am. mais non xam nga lu tax. waa dañu wax ñun en tant qu' avocat bu nekkee ci plateau lu nekk en instance atte kuñ ko waruñ ci wax. man commentaire politique laa soxla. yow fàtte woon ne man dañ ma suspendre woon fii presque 17 jours. ñu ne boobu sama wax bëri na si du ma am autorisation di bato yi. mais man politique bi man man bu ma ca waxee léegi nii ñu ne ma amoo autorisation. pour dossier boobu non man waxuma avocat bi. man. Euh, mais même même l'homme politique bi ñu ne l'homme politique bi ñu ne ma avocat aussi. non non du ma dugg ci détail yoo xam ni. non non non man invité wu ma avocat bi man homme politique bi laa. loolu laa pourtant des avocats ñu ne ma mënuñ nangu loolu. mënuñu dissocier ndax yaa ngi wax ay questions juridiques ci plateau bi. kon sa xam-xam avocat nga bay wax. waa mais yow politiquement est-ce que c'est fondé est-ce que c'est censé recours yooyu ñu déposé contre Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye au prétexte que bi ñu euh, démissionné démissionné wuñu euh, contre Cheikh Tidiane Dièye contre Bassirou Diomaye euh, contre Habib Sy. du ma ci wax ndax sama yoon nekku ci am na ku ñu fay weer jox leen ay moyens ñu tudd conseil constitutionnel. ñu war a saytu xool ñu war a bokk li ñu topp ndax dëgg la am déet ndax mën leen a xañ ñu bokk ci élection yi bu boobaa dina motiver décision am ma taxaw di waane di jox la sama waa conseil constitutionnel. mais euh, cette question